ngeen ko tar yow la démb fii yow la démb ak yow la démb fii yàlla ba fay say ñaan sax da ngay yàgg a taxaw lool yàlla boo leen seen day yàgg micro micro bay micro yow bu soppeeku benn sax yow benn sax yow ci amee nga lool taxaw parce que démb boo jaaree ko yow ci dem nga ah, jabar ju yar la. kii koo denc ba mu amee 12 teg ko foofu. man maay bàjjana maa koy waxal loolu. ko sax mu toog mu koy yar waaw. waaw. kon kay bul bës li bàjjen bi wax. Ngoone waxal. Ngoone nee na ñun ñun ñoo nopp tarba. tarba may bàyyam kii may bàyyam li nga ko laaj ci tarba moom xamagul nopp ñun ñi ñoo nopp tarba ñun ñoo nobele ñoo nobele waaw waaw ñun ñoo nopp ndeyu Tarba nopp Tarba. boo demee na Tarba bàyyi nee na waaw. ñoo la nopp bàjjenam bii moo ko yor ca Las Vegas barki démb laa dem Las Vegas bi seen papa génnee àddina dama dem Las Vegas dem jaale ji leen seeti leen xool nu ñu toog doon secrétaire particulier waaw taxawaalu la di liggéey waaw nekk xale magam gàtt kan ñu wóolu ko mu yore seen compte yëpp business magam la yor taxawaalu tambaambalu ak Moustapha Mbaye bi jóge fi léegi Ndeye Khady Faye di yaayam. ñoo ma woo ca koor ga. du du kooru ren kooru daaw jéeg di xool fu taatu tool ñoo màggeex na mu toogeex na ndax ay jëwee pour la ñu bokk benn maam bés boobu xam ne rien entendre et ne rien dire la ay baaj la ay baaj bi ñu sëyee loolu wér na loolu wér na ana ana ana delloo si ko waa Sénégal c'est-à-dire c'est-à-dire jaaree gisul déggul xool gis di sëy ba sëy rek ba dee bu sëy rek lay def I love you I love you tar ay xale bi xale maa gën a waay li kenn mësu ko gis lu lu moo ñu fi tase mooy témoignage. li may wax kii may ko mu toog. dafa am lu xew. li xew ci la ñuy nettali tuuti. what goes around comes around. there was a time. dafa yàgg lool. am lu xewoon Amérique. bàjjenam bii ne fa. bàyyam tukki. Maodo Mansour Thiam. yaayam ëmb ko. sama ah mu matu. Adja Kiné mii yóbbu ko clinique sama soxna. mu am fa doom bu jigéen. doom bu jigéen boobu yàllay def. muy màgg ba doon kii toog fii tey ñu koy sant yàlla ni kon nañu ñaanal yàlla keroog bañ ko uufee di ko tudd yàlla barkeelal nañ ko mu doon sant yàlla ci ñun mooy sunu intention. mu doon mu émotionnel nag te rëy xam nga lu tax mu émotionnel te rëy bàyyam dafa wàññi matagul at bàyyi ñu fi mu ñoo séparé wu doom bi ma Azo tuddee Amérique am na 32 ans doom bi ma ko tuddee mi ngi soog am 12 ans ca témoin bi mooy Ngoné Thiam nii ak nii fa nga jëm defe naa ni doo daw ndax sa ndey dawul woon ndax ajaa néew na ku dem Amérique yàgg fa yóbbu sa njaboot dem ba bëgg ñibbisi ni sa soxna ay suñu ñibbi mu nangoo ànd ak yow loolu boo demoon tey di natt góoru Amérique wala Europe bari na fa góor bu yóbbu njabootam yàlla defal ko teraanga nga xëy ni sa jabar ja nga fa yóbbu woon kaay ma delloo la yow Adja wóor na ni loolu amul Amérique boo compté maatu doo tudd keneen xanaa magam ji mu fekke woon muy Adja Kiné mu doon émotionnellement keroog ba mu juddoo dafa fekk baayam tukki maa jënd xaru tudd maa jënd cuub bi sol yàlla rek moo loolu yëpp caam ñu koy sant yàlla baayam nekkoon ni ku baax muy Mansour Thiam xarit bu mu am lebal na la teraanga tudde na la doom lebal la loo ko mënul fay la tax ma dagg bi avion moom mu dagg bi avion ñu ñëw ndax kat ku dese dese la dafa am yoo xam ne ni si symbolique petit yàlla defal ñu sutura may ñu kattan ñu fekke loolu bëgg ko symboliser bëgg ko rappeler mu nekk témoin baayam am na xaru tudd am na lu mu ngéntee doomam waaye daf ma ko cëralee yow mi bàjjanam yaa ko uuf keroog ñu tudd ko loolu la ñuy sant yàlla li jar sant yàlla bari na ndeyam nag musula daw kon defe naa ne doo daw fa nga jëm defe naa ne doo daw ndax sama mbasu wàcc na wax naa ci jàkk ji sànq ni sa baay def na jaloore keroog ba muy yóbbu ndeyam màkk man la yóbbante huit millions Seydina Muhammad na bee jara way oo dara yaakaare Seydina Muhammad moom laa lay wayal yonent Yàlla Muhammad maa ngi lay ñaanal si bis bi yàlla si yàlla parke si dara jëy Seydina Muhammad bëgg dem aljana sopp dem aljana yaakaar dem àddana li nga saa xayru xalqi laay kenn du yeneen jàmm Muhammad Muhammadu Rasulillahi yaa Rasulallah xayru xalqi laay rasulallah xayru xalqillaay mu ëpp ñëpp fit ëpp ñëpp doole ëpp ñëpp jàmbaar li muy bari bari doole boo ko tooñee léegi léegi daf lay baal ñu salaale lu gën Muhammad moom lan lay woyal ñoo ngi lay ñaanal si bis bi yal na si yàlla def barke si daraja yi Muhammadu rasulillah bilaay kenn lil Mustafa ah.

Eh, Adja Kine ñëwal. ah mami. Fatim. tuuti. bougeel kii dafa bokk ci yëf yi defal exactement li ko wax. kii dafa bokk ci interview bi. nga dem sa yoon nga dem. ne t' en a pas de bougeel lañ wax